affaire yi nag mi ngi commencé guddi xam naa léegi ma ñibbi nag mais mënuma dem aussi tamit romb fii kër gi kër gi madam Ndiaye ne Rokhaya Ngom macha allah kër gi miin naa ko dañuy xëy ñun ak sunu équipe nekk ci kër gi di taqal di tilimal di di naan café yi <laughs> naan jus lekk añ yi xoole njoganalu booy njoganalu <laughs> njoganalu ñoom bisu njoganalu ñoom Babacar yëpp ñu dóor ko ba pare nag daal di ñibbi te ndeysaan ay ree nga ci am borom joxe la ko xol bu rafet muy manam Ndiaye nee Rokhaya Ngom di directeur MPS. Euh, lan nga ñuy wax ci bisu tey bii salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di kontaan déjà ci seen euh, teewaay fii yëg la mu nekk lu ñu neex nag ndax euh, ñu ne la utal fooy dem def sa émission nga boole ñu si dafa fekk yow rek yow yaa baax yow yaa yow yaay nit ku baax vraiment dañ lay sant di sant waa 2 di sant euh, directeur 2 ak équipe bi yëpp ak ñi nga àndal bés bi nag euh, sant yàlla la ko dund daaw ba ren fekkaat la fi ah dañuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ay déwén yu bari fekk fi mu ànd ak wér ak wérle euh, ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp di ñaan jàmm ju yaatu jàmm ju sax jàmm ju dëkk di ñaan ay xéwal yu yaatu ci biir réew mi ak réew yi ñu wër ku nekk li ngay yëngu yàlla taxawu la si ba lépp loo si ut yàlla defal la ko loolu daal laa ñaan ci bés bi. Euh, at mi ñu génn ñu ñàkk ci kilifa gu gu gu màgg euh, lan nga ci sànni comme kàddu. waaw mu nekk lu lu metti lu tiis ci senegal yëpp muy jullit yi euh, tarixa yépp muy tamit euh, ñi nga xamante ne euh, chrétiens yi leen ak chrétiens yi la ak ñëpp daal ñëpp ñàkk man nag particulièrement dama ñàkk ndax doomam mu tudd Safiyatu si sama xarit la duñu tàkkalikoo man ak moom benn yoon mu nekk nit ku baax muy doomu al amin mi wàññeeku bërki démb donc bokk naa ko ak sénégalais yi ñàkk waaye ñàkk naa tamit ndax sama sama papa la ndax sama papa xarit la donc euh, tiis bu metti la waaye dañuy sant yàlla di sant yàlla yàlla taas ñu ci barkeelam yàlla yokk leeram ndax nit ku baax la nit ku baax la woon ku tabe ku yaatu ku xamante ne dëgg yàlla bi mu dëddoo xëy na sax la ñu gën a xam dimension nit ki waaw vraiment borom baax la woon bu mag a mag a mag Sénégal ñàkk na waaye ah yàlla moom bu soxlaa keneen ku soxla da ngay ñàkk kon euh, di ñaan yàlla daal euh, mu dëdd ak jàmm leeram des ci Sénégal Euh, loolu daal lay wax si loolu. nga jël ay bernde rey ay xar dem wut ay fruits wut yi nit ñi naan ngir béggalee ko ñi nga xamante ni bii nii dañu nekkandoo ak yow di liggéey nga di leen fay ba weer bi jot ba fet du travail jot nga wëlbatiku di leen béggalee loolu euh, lu waral loolu. waaw xam nga entreprise moom famille la. man dama jàpp ne ni ma amee sama njaboot fii ci kër gi ma jur leen ci farata yàlla ak sunna Muhammad di def lu ma mën ci ñoom ci seen yar ci seen nekkin yàlla mi dara tawul moo ma dénk societé MPS nit bëgg na nekk chef d'entreprise wala directrice te nekk ko dama jàpp ne lu ma yàlla denk la donc ñi fay xëy si ñëpp sama njaboot lañu samay njaboot lañ ñi ma fa mag ak ñi ma mag ñëpp sama njaboot lañ bu nekkee ne nag dafa am bu ñu jàklee liggéeykat yi muy le premier mais dëgg la sax doole gi xëy na eggewu fa waaye dafa nekk loo xamante ne dina gën a boole xol yi ndax nduróole boobu may def c'est pour montrer que rek ñun ñëpp benn lañu directrice générale ba ci ni nga ko waxee coursier bi wala kiy taxaw ci bunt bi ku ci nekk am nga looy apporte ci liggéey bi pour mu jëm kanam ku nekk am nga sa importance ci entreprise bi bës boobu nag su jotee bëgguma kenn xam kan mooy kan muy moo waral nduróole boobu ñëpp sol même couleur même yére entreprise bi jënd ko jox ko ay ay ay ay collaborateur am ñu sol ko ci jour bi comme ni nga ko waxee ñu defal leen ay bernde ñu koy yendu suba ba ngoon di fo di ree bokkandoo lekk tibb ko def ko ay bool yu yaatu duñ ko def sax yëfi tubaab ku nekk tibb sa plat dañ koy def ay plat yu mag gaa yi wër ko ñuy kaf ree loolu dafa am lu muy yokk tamit ci suñu diggante ci ñu gën a jàppante xam ne ay mag ak rakk lañu yàlla moo ñu boole ci entreprise bi tënk ci suñu wërsëg mënoon nañ dund ba dee te kenn du xam sa morom si ñoo ñu dafa xëy hasard amul ñi yàlla boole ñu bokk fu ñuy xëyee su weer dee la fa ruus ñu bokk ko séddoo loolu yàlla la neex yàlla moo ko def ñun defuñu ko man nag su ma yàlla jiitalee su lu mel noonu dama war a def rek lépp lu koy tax rafet lu koy dëgëral dama ci war di dox keroog nag mu fekk ngeen fii def tournage ngeen yem ci. <laughs> Ah, beneen bi ci des mooy lan ngay tëje waa xanaa dellu di sant yàlla rek di gën a sant yàlla ci comme ni ma ko waxee ni ñu fekkee waatu bésu tamxarit bii tey di ñaan yàlla ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla nangul ko jàmm jiitu si am fan bu gudd am wér di dégg jàmm ndax jàmm si la lépp xaj yàlla nañ yàlla defal jàmm ñun ñëpp lii nii yàlla nañ koy def ay at yu bëri yow ak sa équipe tamit yàlla jàppale leen ngeen yokk ba yëg ko tournage yi ngay def ak yi ngay yëngatu di bégal sénégalais yi yal yàlla gën a dëgëral sa taxawaay dëgëral taxawaay 2STV ndax nag télé bu ma neex la télé bu may suivre la ndax qualité nga fay gis. kontaan naa trop di nuyu ñëpp di sant sama ay waajur sama yaay mi fi nekk mère Fat Ndiaye di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal fan bu gudd ak wér waaw nit ku baax macha allah di sant tamit sama borom kër. bi nga xamante ne nag loolu ngay wax yëpp ci kër gi moom la moom moo moom moo uuf ñëpp moom moo baax ba nga xamante ne su ma ñëwee ne ko ah dafa am ñu fi bëgg a tourner mu ne ma amul benn problème loo bëgg rek baax na donc moom moom moom sant gi maa ngi koy sant bu baax ak xale yi fi nekk ak sama yaama caam mais nga xamante ne ñaar fukki atu yàlla yàlla boole ñu ko waaw gan gan gan bu ñu am mu togg ba mu neex jox la kenn du gis ci kanamam benn yoon man de sonn naa ndaw si dafa bëri ñu fiy ñëw wala nangam waaw sama taaw bu jigéen la sama lépp dama koy sant dama koy gërëm Ndiaye mais tamit taaw la ak waa gi yëpp ah, <laughs> biso gi noonu fekkee déwén ci at mi fekkee déwén ci at mi fekkee déwén gi yàlla bu ñëwee la plupart yow lañ fi fekk yaa ngi yaama mële yaama mention spéciale. mais bisu sant naa la gërëm naa la looy looy wax. maa ngi nuyu ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm. macha allah waaw. ñaanal. Roqe Ngom. mu yàgg fi lool ah. lool te wér. amiin waay amiin waay. macha allah amiin eh, ko man nii la koy. mën a fecc lii yëpp la lii yëpp yaa ko fecc ah man yaa ma dàq fecc man kay maa ko gën a dàq yaa ma ko gën a dàq so ñu ngi lay fay mais nag tey am ngeen ma de sincèrement parle ñu ngi lay fay di profito di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baal ñëpp àq ci wéy tamxarit bi ñu nekk nii mhm. di profito plus particulièrement à Mbaye vraiment moom suñu gaynde la mhm. parce que bof boo xoolee li ñuy liggéey yëpp lu ci bari moom la ñuy àndal mhm. ça fait pratiquement deux ans mi ngi nii moom la faral di àndal amul façon tournée bu ñu deful te vraiment mi ngi koy gérer mi ngi koy gérer à l'agréable parce que fu ñu dem déjà au lieu ñu wax marque bi ci moom la ñuy njëkkee te yow ak yow tam parce que am na nga jour ñu ñëw ak benn client rond point Liberté 6 t'as fait quelque chose d'exceptionnel vraiment on vous en remercie quoi boole ko ak caméraman yi parce que on se connaît depuis longtemps depuis ay jamono beneen dimension la mais tey moom am ngeen ñu quoi lan ngay wax sénégalais yi ci début année bi nga xamante ne bi nii ñu ngi koy jub ñu ñaanante jàmm rek ku nekk yéen sa morom jàmm parce que boo xoolee jàmm ci la lépp xaj parce que Sénégal wax ji bari na trop mm-hmm. mais nañ ñaanante jàmm yéenante jàmm rek mm-hmm. di faral di saraxe di faral di euh, ñu déggoo daal suñu biir daal parce que tam metti na trop mais affaire yi mi ngi avancé ndànk-ndànk peut-être dañ ko gisagul parce que dañ ko xaw a yàkkam ci tam mais nañu dal rek bu ñu dalee tuuti ku nekk yéen sa morom jàmm rek après boo xoolee kilifa yu mag yi ñuy gën di dem ndànk-ndànk c'est-à-dire mi ngi gën a nekk problème si ñun bien sûr que fi ñu leen denc mais ñun xale yi ñoo fi nekk parce que léegi boo xoolee lu ci bari ay mag lañ leen gis ñuy gérer mais léegi xale yee fi nekk di gérer affaire yi nañ jàppalante ñun ñëpp daal maa ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax seen tewaay bi rafetlu nañ ko trop gérance Events yëpp rafetlu nañ ko donc euh, soxna soxna si moom je pense pas mu mu mu mu mu fiir ci parce que nii lañ xamante waaw nii la ko disee xam na ne maxu ñafekat la donc fiir day am na waaye wóolu sa borom kër sama fekkee ko tal ko su fekkee ak tal te buñ ndax buñ ko fekkee te taluñu ko tamit amul sens donc nañu ñaan yàlla ñu fekkee ko te tal ko ak mbooloom jullit merci beaucoup Maxu lan mooy dernier mot bi ndax fi mu ne nii monsieur le maire bu yëmbal la nga ñuy xaar ah waaw xanaa di remercier gars yi rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp rek di la wax ni bëf am na lu ñu defoon yëmbal. ñëw nañ ak ay marques yu bari andi ko fa. waaw waaw ci njulli yi. Ah, njulli yi foofu noonu. mais yaa ngi def ak njulli. non si non am na loo def ak ñoom. day national bi amoon moo tax ñu renvoyé ko. ok instant bi yéen la ñuy il suffit que ngeen joxaat ñu beneen date automatiquement ñu ñëw. jeex moom ñu ngi fi bagage yëpp ngi fi. jeex très sincèrement. kontaan nañ ci yow di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp. plus particulièrement éléments yi. parce que éléments yi moom lépp du mboq mais éléments yi ñoo ci nekk. ngi leen yàlla defal macha allah. merci beaucoup Mahmoud. non maman Ndiku lu la booleeg sunu mère. waaw asalaamaaleykum. naa leen di nuyu sama doom yu góor yooyu. waaw di nuyu Bruno. ma ñëw nag yëmbal tey. waaw si monsieur le daaw Daouda Ndiaye nekk nit ku baax. Mhm. nekk nit ku yaru nekk nit ku yaatu. ñii too ñëpp ay rakam nañu. macha allah ñii too ay xayitam nañu tubaarkàlla macha allah. nekk yëmbal fi def lu baax nag. nekk nit ku baax tubaarkàlla yëmbal nee na moom la. liggéey rek ma ko tax a jóg. am na fulla am na fayda Macky naka reconnaître na ko tubaar ko àlla bu baax waaye dama bëgg mu gën ko jàppale macha allah jàppale xam nañ si dara barki sëriñ Fallou Mbacke mi ngi jàppale yëmbal bu baax yëmbal jooyunu dara am na yërmande tubaarkàll am na ñaanu waajur fàttiyaama ko jur kooku maa awa bokk ndey maa awa caa mi ni jooyte noppeegunu Ndiaye Sonatel la ñu wooyee ci ku li njaajaan njaajaan sare Sere Ndiaye Ndiaye Ndiaye Birame Ndiaye May sa Ndiaye mi ci ñaani bu ko aar bii sàngu leen. goroma ko njëkk a gërëm mi ngi ci biir. dëgg layoo bi jee. nee na yow a buñ ko waxee nee na yow fa caam sa yaay bokk yaay ma awa caam mi ni jooy ta noppeeku nu njaay sonate la ñu wooye sa baay biram njeeme ay sa mi ci ñaani bukaari bi ga sangu leen day ba mu neex ana mu sela meeroona aw de njaay du neexu waa walaay ana li bu soo mbokk yaayum daaw de njaay fat caamay sa yaay mbokk yaay ma awa caam na xala baay waaye bàyyi wu fi gàcce chéri Maguette Seck lay woo filifooru Maguette lay way Maguette Seck du la seetaan nga fi nee na yaa yorum filingam yokk yoo monsieur le maire nuyu nañ la. maa ngi lay fay Yoro di fay euh, équipe bi nga àndal yëpp muy nekk euh, caméraman technicien mbaay sama xarit ak vraiment ñëpp ñu ngi àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Euh, monsieur le maire fi ñu njëkki mooy tey ñu ngi ci bésu Achoura lan ngay wax jullit ñi ak ñi dëkki réew mi ci bis bi. dama lay sant d'abord di la gërëm fierté bi nga nekk ci ñun en tant que doomu banlieue nga dëkk yëmbal gëm sa bopp ñëw ba yegg si niveau bi nga yegg si ñu am occasion bu mel nii nga delloo si waat ko yëmbal dañ la koy sante di la ko gërëmee si occasion bi ñu may ñu wax waa yëmbal baal leen ñu àq bu baax a baax ci at mi baal nañ leen àq jiite dafa yombul dafa am ay sew-sew yu si nekk di nga toj nit te doo ko yëg fekk da nga ci jublu woon defaral ko ñu ngi profit si bi di leen jéggalu di leen baal àq te di leen baalu àq ci tam tamxarit bi euh, cabinet maire bi yëpp ñoo fi toogoon di la xaar kii mooy conseil technique bi Mamadou Kambay chef de cabinet bi xam dan Thioum sama bàjjen Leela Ndiaye ak CC ak attaché de cabinet bi nga xamante ne yéen a moo la doon coordonner émission bi. depuis ce matin ngeen di jokkoo di waxtaan. mais su ma ko waxee suñu fierté nga. Mm-hmm. su ma ko waxul tamit suñu fierté nga en tant que ay doomu yëmbal. Mm-hmm. dañ lay suivre si ay émission mm-hmm. di sama rakk yi ñëwoon aussi di taajo bon si far ngeen daje fii si kër gi aussi. rafetlu naa ko ak dëkkandoo yi ak euh, soxna Maguette. Euh, nga xam ne aussi wax dëgg yàlla def na ci seen kéemtalaay kàttan madame le maire donc euh, ma koy nuyu également di ko sant. ma am benn surprise mu ñëw fekk fi Yandi Couture. waaw euh, wax dëgg yàlla sama maman bu baax la ndax ku ñu ku ku ñu euh, dañuy faral di wax ne bu dee géwél yi baaxuñ ku ñu fi bàyyi baaxoo mhm. mais c'est dafa nekk au delà de ça dañoo baax moo tax ñuy topp lu gën a baax ci nit à chaque fois di ko wax mhm. euh, day ñëw à chaque fois dafa am sërëm bu dëkk à côté mais musul teg tànkam yëmbal te ñëwul ba fii par hasard la ñëwoon fii sànq bëgg dem ñu ne ko non doo dem ndaxte Euh, Yoro dafa war a ñëw équipe bu 2S dañ fi war a ñëw dañoo bëgg nga fekkee loolu mhm. animation bi mu ci def aussi wax dëgg yàlla neex na trop mhm. talaala am wax dëgg yàlla ku ko xam ci làmb ji xam ne talaa ko yàlla may kon coïncidence bi neex na ma trop euh, ñu profité si occasion bi rek di euh, wax waa yëmbal baal leen ñu baal nañ leen xam ne am na lu bëri lu ñu jot a def mais am na lu bëri lu des mhm. occasion bi ñu may mooy ñu mën a permettre Euh, li ñu fi jot a def mu nekk ci mbiru diine ak ci yeneen ak euh, mën naa ne euh, góorgóorlu nañ ba waa Yeumbeul bañ ñoo mere te loolu yàlla na jëm kanam dañoo dénk ñu nekk ay ndaw ñu xam ne on n'a pas droit à dañoo war a def loo xamante ni bu subaa dañuy wóolu ndaw ñi pour dénkaat leen ni nga nekkee xale imposer sa bopp ci aar bi ba yegg si si niveau bi nga yegg si ñu nekk ci politique bi ba yàlla indi ñu si niveau bi dañuy ñaan ndaw yëmbali ñu gën a gëm seen bopp ñu gën a joxante loxo ñu gën a liggéey te xam ne affaire bi liggéey rek la amul benn secret euh, maa ngi gërëm sama soxna na koy si aussi parce que waroon na fi euh, teew situation moo tombé ma ma nekk fii tey euh, ñu ànd ñëw fii wax dëgg yàlla suñu ko gënoon teel a yëg dina ñëw fii ñu ànd wax dëgg yàlla ak accueillir la parce que aussi fan sam nga tëdd lay békkee yoro ma lay wax ne yëmbal nag Euh, nit gi nañ nekk fenn am talan waa dëkk ba bañ koo sentir mais yow lu ñu mën a am ñu teg manifestation nga teew moo ñu ko gënal ndax bërki démb je crois am na xale bu ma romb naa nit mu toog ma yor téléphone ñuy wax ma ak yow ma ñëw bi ma ko ne yoro laa laay waxal jox ko téléphone bi dafa jël téléphone bi di daw di wër sa kii veut diir que am na foo toll ci waa yëmbal euh, ñu lay ñaanal yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay mbaay mi nag sama xarit la sama waay la man ak moom scooter ba ndeysaan bi xam naa dina ko ko wax sama sama sama sama waay la waaw. billaahi maa ngi jégalu ah mbooloo mi xaaral ma sol verre yi li may wax dama ne pese tout vokor pese tout vokora ni far pele balaa foo ci kii ci suuf nee na pesetu vokorani farpele bala fo le royos arose hey, le dong sudela le dong sudela wiya yo lisipalete nembu resa dong sudasala mene pesetu wokora sunu mer bi rasambale wax leen mer bi rasambale Daouda Ndiaye yow rasambale Daouda jàpp soo andi dem ak ka dama ne kii moo gën mën a yokkoo dara ci gox bi daw la lu nit gaaw gaaw tar mu tar tar roppalaan du tax mu jot ci daaw de mii adduna bi def leen danga xam ne kii moo gën daaw de neexu leena ah. sunu maire bi neex waaw maa ngi sama kër maa ngi sama koñ maa ngi sama secteur kii nag dafa nekk koo xamante ni bi ñun dañ koy tiitaroo ñun ñëpp waa koñ bi dañ koy tiitaroo ñu yàgg depuis bi ñu nekkee fii di dóor ay plateau fruit ñu nag moom ba sunu joonu yàlla yi tey. Eh, kilifa gi nuyu nañu la. Eh, maa ngi leen dafay yoru eh, yoro di nuyu di remercier aussi ñi nga àndal. Euh, di remercier waa 2STV euh, waaw su fekkoon ne surprise ngay wax rek. vraiment def nga ma vraiment surprise. <laughs> parce que xalaatu mu woon benn yoon. ne da fi fiy ñëw da nga ñëw tey. waaw donc euh, bi nga ñëwee léegi. da nga fekk en de de réunion. ak sama sama égard du mouvement tey di bisu Achoura di bis boo xamante ne bi nii mooy. at mi nga xamante ne bii nii sunu fin d'année ñun ñu nekk ci début beneen année euh, lan ngay wax jullit yi ci at mi. ah li may leen di wax rek mooy nañu gën a góorgóorlu nañu gën a góorlu si seen diini ndax j'ai l'habitude de le dire dañu wàccee fii suñu borom daf ñu wàccee fii pour nañ ko jaamu mu nekk contrat bi nga xam ne dañ ko signé ak moom donc contrat boo signé ak nit danga ko war a respecter su fekkee. bëgg nga jot payoor mhm. ñun ñëpp dañu ne woon waaw mhm. suñu wàccee suñu yàlla suñu borom wàccee dinañ ko jaamu mhm. donc nag yoon la devoir la ñu jaamu jaamu suñu boroom di dimbalante di jàppalante ndax àdduna bi dafa éphémère dafa gàtt dangay toog tey rek ñu ne la diw dem na yoonam nga toog suba ñu ne diw dem na yoonam gannaaw suba ñu ne ah ki doon wax lii day dem na yoonam donk nag yaakaar naa war nañu gën a euh, góorlu suñu bopp góorgóorlu suñu biir jàpp sa bu baax a baax suñu suñu diine awulan torodo samba ngaari jama samba ngaari awulen walya walya be cerno cerno be torodo wal mama an torodo samba ngaari jama Demba. Sukkanong Kolle. <laughs> waaye maa ngi nii maretu. damaa kontaan ba lu may wax. waaw loolu c'est xam ngeen ne lii dara fay ko. ñëw fii tey. waaw waaw loolu ku ko gis nga xam ne mooy Yoro Sow. waaye li muy def neex na Sénégal lool. ànd nax yar ànd nax lislaam ànd nax teggin ndax lépp lu télé di wone lépp lu rajo di teg. ah wax dëgg yàlla ci culture bu ñu compter benn wala ñaar sa bos a ngi ci biir waaye ku toogoon it ak say doom wala sax koo rus muy sa goro sax ndax nit rusul kenn rusul kenn ko ëpp goroom waaye dinga nga seetaan ba mu jeex te doo am dara looy looy rus ci sa kanamu njaboot ndax dina neex dégg dina am yar dina am dégg-dégg te dinañ ci jëriñu wax dëgg yàlla soo amee nag euh, lu day na bës bu mel ni àndax ki nga xam ne mooy tele bu mag bi di 2 yi di nga xam ne macha allah defe naa mooy premier chaîne privée. du Sénégal. partout dans le monde boo demee boo jàppee seen chaîne nga seetaan ko ñu ànd ak yow jox la seen caméraman bu baax bu yaru bi nga xam ne lépp lu mu filmer rek day jaar yoon nga ànd ak équipe bu day nii délégation bu day ni ñoo seet si Marietou mi nga xam ne macha allah. dama naan ñun Marietou eggul fi gars yi egg trop. waaye. ci bëgg ma ak yëg ma man damay toog sa nit woo ma ne ma déggoo yoro ci yow de la nekk tey wala ci yow la xëyee wala ci yow la yendoo loolu ci ci bëgg nit ki la. kon ñun dañ lay ñaanal euh, soo pulo foo bëgg a egg yàlla na nga fa egg. nekk at moo xam ne bari na ay tiis lool bari ay nit ñu màgg ñoo xamante ne bi nii jóge nañu fi mm-hmm. Euh, lan ngay wax sénégalais yi. ñu ngi baalu ñëpp ak comme ni ñu koy waxee di baal ñëpp ndax ñun lii mooy sunu fin d'année. lii mooy sunu 31 décembre suba mooy sunu premier janvier. te ku ci nekk day baalante moromam ak ku nekk am na loo def sa morom loo yëgul am na lu sa morom def te yëgul ku ci nekk ñu raxas xol yi wàccee lépp lu ñu bàyyi woon jàpp ne yàlla moo ñu may. ñuy am xol mais yàlla moo ñuy may que ñu ñuy tooñ ko wala ñuy tooñee ku ñuy tooñ ngay tooñe buñ la ñaanee njégal da ngay baale deuxième bi mooy ñu ngi jaale Sénégal Sénégal reen tàng na torop tàng na torop yal nañu yàlla musal ci guerre yal nañu yàlla musal ci lépp luy balaa yal nañu yàlla musal ci lépp loo xam ne ñaaf ñaaf def la ndax ñu ngi gis ci àdduna ci télé yi ci rajo yeex ci net bi lii xew ci àdduna ba ci Birmanie mi nga xam ne ñu ngi koy mettitlu képp kuy jullit boo demee boo demul yaa ngi koy mettitlu te képp ku leen teg loolu yal na la yàlla alak ci kanamu jullit yi ñaare la ñetteel bi mooy que kilifa yi fi jóge muy kilifa aada yi muy kilifa diine yi reen bi ñàkk nañ fi ñetti xalif yoo xam ne Moustapha Cissé bu piir yal na ko yàlla yërëm te ñu yàlla taas ñu ci barkeem ñu ñàkk ki nga xam ne moom mooy Moustapha euh, Cheikh Tidiane euh, si bu Alaaji Babacar si muy xalif général bu Tidiane mu jóge fi même pas si mois Abdoul Aziz euh, Al Imnu jóge fi moom tamit di xalif kon loolu defe naa yàlla moo ñuy woon boppam ñu ne déet ne waaye jibokaa jóge fi Habib Thiam jóge fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ak xalifa bi jógee fi euh, nu mu tuddati Touba nu mu tuddati euh, maa ngi jéggalu ci tur bi dama ko jàppatul nii comme boo jëkkee rek micro da ngay xaw a jaxasoo mais ñu fi ñàkk ci ay xalif bari na ñu fi ñàkk ci ay nit ñu baax bari na ku ñu xam ak ku ñu xamul ñu ngi jaale ñëpp di masawu ñëpp di ñaanal ñëpp képp ku fi jóge yal na la yàlla taas ci àjjana yu gën a kawe yi. bu war dem teel a ba profité daal doole ñam tuuti. waaw baal ñu ñam lii rek ay cër tuuti xel ñu ñam rek. wax cere cere bambara nag. cere bambara day nooy cere laay fekk ji. <laughs> Eh? Ah, ka neex na ko ndox moom mooy borom udduree ne ko jeew a gàlle ne ko ne réer bu suur ay dégg nga cere ji jox nañ la ko dégg nga ma macha allah. Ah? nee naa la man mari si soxo ba ma koy gisee ci télé bi damay kontaan waaw ndax li muy way teg na ko ci temps euh, te macha allah da koy seetaan every day waaye nag comme ni nga ko waxee rek nee naa la fi jaar yëpp nag fépp ñëpp a baax waaye may mayertoo gi moo ci gën a baax ndax nag def ñoo teregal cere cere ñoo ko mën a lekk ñax ñun ñu xam biiru cere ndax ti bu sax ti bu ñuux ti ku jàllax ni ku maramandoo cere yaa gore maretu yàlla nga gudd fan. yi nag mënuñu fi woon a bañ a teew ndax kon su boobaa damay def erreur bu rëy te. bugguma def erreur ñi ngi ñi ngi wax sénégalais yi nag ni euh, wax dëgg yàlla mënuñu dem fépp mais jàpp nañ ni ñii ñu seetikat dina ñu wax lu amal njariñ sénégalais yi moo tax ñu seeti ji leen et je pense que ni li ñu fi déglu depuis ci commencement bi ba fii ñuy toll tamit euh, njariñ dong la ñu ngi ñaanal sénégalais yëpp nag at mii nekk atu xéewal nekk at moo xam ni atu jàmm la et di leen dig tamit ay bagaas yu bari yoo xamante ne bi nii ci at mii di ñëw di ngeen ko gis. aywa